revue de presse yi saxal dénduk Espagne ak yan ca toftal yëpp di leen ci dikk ci xët wu yaatu ginnaaw bu leen ziare bu baax a baax ñaanal leen burduk jàmm gàmmu jeeg jàmm dem ak jàmm dikk ak jàmm ci barkeb Seydina Muhammad kontaan naa ci yéen abonnement yi maximum de partage ak di ko coppati ndànk ndax day tax lu ñu dugal ñu man ko am en temps réel information yu wérte wóor yéen ci endroit bu baax bi fii rek lay xew ma Malick TV ñu diglu sponsor mag yi ah, gars yi tey ba tey bay baneen bi ci des mooy ah, Seydina Ousmane màggal gi wala gàmm gi am na yu mu leen préparé ci bagage yoo xam ni gars yi gaaw leen coppati ko def seeni commande alimentation générale Kën Bëgg Bamba euh, numéro 2 mi ngi toj li nga xam ne mooy dixième mag li ko wër ànd ceeg ki nga xam ni mooy le jeune député le tout nouveau jeune député euh, moom moomee nga xam ne bagage yu yomb yi moo ko yor tey dafa ne ci promotion màggal gii ñu jom di màggalu xaadim rasul gi nee na ma alaaji Malick fi mu nii bagage yi stock bi dama koo yokk yokku cere dollu ñeex te lu mu jaayul baaxul lépp lu ngeen fa jënd yaakaar naa ne am na promotion bu mucc ay boo xam ne ma nga leen di xaar bagage yaa ngoogu daari alimentaire manqué wun dara euh, passé euh, diwlin vingt litres ngeen gis ko ci image yi canette euh, nag daanaka stone ban fa teg ci taabal ji euh, soriwut ak conteneur ngeen gis bagage yi yaakaar naa ni lépp yemb na ci suñu place numéro téléphone yi moom ngeen di gis ci jeextalu vidéo bi bu ko defee lépp mën a def tawféex gars yi am nañ li nga xam ne mooy ndawal gu yomb goo xam ne loo ci bëgg mën nañ la koo peeseel suñuy gérant bokk gérant yi nga xam ne ñoo gën a mucc ci dëkk bi maanaam di la teeroo ni ñuy teeroo buur bu ko defee lépp tawféex nga gis bagage yaa ngoogu ñu wan leen li lée nga xam ne mooy numéro téléphone yi mu ngi noonu alimentation a kër Bamba numéro 2 ngeen gis ko ànd ceeg Ousmane le tout nouveau jeune député lii di numéro téléphone yëpp a ngoogu bu ko defee bu ngeen wootee mën ngeen a faye wéef mën ngeen faye li nga xam ne mooy kape mën a faye Orange Money mën ngeen lii di ah, Tigo Cash équipe mucc ayib di leen xaar équipe baa ngoogu gars mel nii est-ce que am na ah, ci ñuy liggéeyaloo nit ci biir dëkk bi ndax cawarte nga xam ne mooy mën a teeru client kanet ngeen gis ndox mi ay pack ak boisson ah, façon bu ngeen bëgg am na fa ceeb ak diwlin en gros demi muy parfumé muy ordinaire muy lépp loo loo xam ne jëm na ci xeetu yu ngeen mën a dugal ci seen i waañ ci màggalu Tuubaa euh, boisson yi nag benn boisson boo xam ne stock ban ci yor mën ngeen ci dara diwlin 20 litres yi ak yeneen ñama-ñama yi xam ne sax yu yees yoo xam ne daanaka tudd nu ko ci vidéo bi waaye lépp mboole seen bu ngeen demee ci suñu place euh, fële euh, ca 10 deux voies yi nga xam ne bu ngeen fa wootee wala ngeen dox ak seen bopp lépp dana taw féex a soow na tamit soow yu mucc ay bi gone ak li nga xam ne mooy boisson sachet yi nga xam ne lépp daal daanaka ci mboole seen ma nga ca suñu place équipe bu mucc ayib di leen fa xaar gaaw def seen i commande waaye baraj baraj jéeg téll téll ji mën naa bari waaye doole yëmul ci mim réew ci li nga xam ne mooy liggéey bu sell te mucc ayib gars yi maa ngi ci Taïba Taïba yi nga xam ne képp koo xam ne euh, bëgg nga sab tabax ci commencement fondement ba yëkkati say caabi ni la ko jabb ba pare euh, di kenke ànd ak yow ci mbégte mi ngay ànd ak sa njaboot dugg ci sa biir kër kenkaayri bi loolu ko tax a jóg ndax liggéey bu mucc ayib bi ko ñëpp xamee gars yi maa ngi ci làmp yi nga xam ni mucc na ayib lamp yi yow mi yor sa immeuble sa terrasse wala lépp loo xam ne yor nga ko ci ab tabax commencement laa lay wax ba foo man di jëm ci tabax ji immeuble yi bu la neexee buddil ba san suñu lamp yaakaar naa ni conteneur yan ca wàcce car masha Allah bari na njëgg yëpp na bitim réew la jóge liggéey ba mucc na ayib beneen bi ci des mooy Moussa ñi mu àndal ak i rakam ngeen gis karo yi nga xam ni yaakaar naa ni dëkk bi karo bu yomb moom boo ko weex ci nun nga ko mën a amee ciment bu yomb naka noonu fer ciment ba ci béton suuf lépp loo bëgg ci quincaillerie générale am na ci suñu place waaye nag gars yi peinture originale bi ko partenariat bi mi ngi ci suñu loxo maanaam lépp loo xam ne jëm na ci peinture ci kaw ba ci suuf lépp bu mën di doon maanaam salatex ba ci li nga xam ne daanaka andiwil andiwil maanaam boole seen bi yëpp rek bu ngeen ñëwee euh, fële ca Taïba Taïba yi ci marché central nga xam ne euh, daanaka di ngeen fa fekk lépp wala ngeen woote ci suñu numéro téléphone bu ko defee ñu jokkoo ak ndaw yoo xam ne ñu ngi sikkumu di jaamu seeni soxla di ay taalibe yoo xam ne yaakaar naa ne jaamu soxla askan wi rek moo leen tax a jóg place baa ngoogu beneen bi ci des nag ma dugg ci léegi muy mbirum maanaam li nga xam ne mooy plombier yi lépp loo xam ne jëm na ci ay siège anglais ay sangukaay yoo xam ne mooy dernière génération yi baignoire yu mag a mag yoo xam ni lépp taw feex ci image yi ngeen di gis nii baneen bi ci des mooy peinture bi waxoon naa ko waaye daf maa ñor peinture bu originalité fii ngeen ko mën a am ci tey ba tey Taïba Office moom tey ba yi ñoo leen di may revue de presse bi ci Aladji Malick TV maa nga noonee gannaaw bën gërëmee sponsor yi sant leen bu baax a baax ci taxawaay bi nga xam ne ñu ngi koy taxaw am na solo yal na jëm kanam Saliou Ciss ñu gën koo xam ci international sénégalais gars yi démb nag record dafa mel ni dafa ñëwoon bind ni moom moom moomee bàyyi na lii di équipe nationale Sénégal wala boog bàyyi na football bu mu ci mën di doon it moom mii nga xam ni mooy gone gi làmm ñu mu ko ci poosam ndax nee na bureet démb ba mu jegee information yi gaaw def benn postu xam le ni moom mii tudd Salif Saliou Ciss di international sénégalais football ca Coupe d'Afrique ba loolee du information bu wér bàyyiwul football tey bàyyiwul football suba ndax xam naa ne mi ngi gundaandaat ba tey ci terrain yi kon yaakaar naa ne loole leer na tey réew mi sport moo ñëw indi euh, Saliou Ciss ba pare yaatal ay doom bala noo dem ci li nga xam ne mooy euh, revue de presse espagnol bi kon loole gaa yi dañ koy bàyyi xel bu baax a baax Saliou Ciss bi ma déggee loolu euh, defuma ci vidéo ndax xam naa ci aw amul jaaxle ndax Saliou Ciss situation yi mu toll yaakaar naa war naa mën a bu baax a baax wuti xaalis dégg jàmmam ba ñëwaat équipe nationale du Sénégal loolu lépp la ko ñëpp di ñaanal ndax moom Saliou Ciss international la boo xam ni yéen xam nga ni Coupe d'Afrique bi doon am Égypte ca Sénégal jëloon ko taxawaay ba mu ca am ta ba tey ji dangar jooju mi ngi ci moom ànduma ci sax ñu bañ koo sélectionné gars yi war a ñëw championnat Sénégal sax waaye championnat bi amul xaalis de ñu dem ci record yëglekaay yi dem ci première galop bi Sadio maana def démb ak fukki gaynde ak ñaar séngam yi nga xam ne teew nan ci boobee programme loole tamit lu tuuti la mais nag comme première séance d' entraînement la première commencement la kon loolee du benn problème ci li nga xam ni moo nekk Aliou Cissé ak ku bees tàq honodaje ci paquet di Papa Thiaw mi nekk premier adjoint Aliou Cissé ma bëgg ci lool kontaan si ndax Papa Thiaw liggéeyam rafet na ci àdduna wala ngal kàpp gars yi dañ koy xëccoo xëccoo boobee nag kon xam naa ni bu fekkente ne àdduna ah, ñoo ko soxla ñun moom ñi dëkk moom dañ koy fonk ah, sargal ko teyit am mbégte ci moom moomee nga xam ni mi ngi ruuru ci tànk kii di Aliou Cissé premier galon d'entraînement bi gis ngeen ci kaw sax Sadio Mané ab yër fëllam ci équipe nationale ngir mën a waaj ñaari match yu mujj yu njëkk yi nga xam ni moom la ñuy football loolee mi ngi nekk bu njëkk bi nag seen diggante ak équipe bi la nga ne mooy Burkina Faso waaye nag réewum Espagne journal daanaka fi mu toll nii moom ba léegi bës bi mi ngi ci loxoy ñi nga xam ne ñooy catalan yi journal sport dafa ñëw ci président ba liggéey bu muccee waaye nag dajaleel ma ñetti gone yoo xam ne gars yi bokk nañ ci ñu yor yor Barcelone ci beneen côté bi nag gis naa ni Olmolo ci beneen côté bi naa ni ak li nga xam ni moo nekk Lamine Yamal ci beneen côté bi ci digg bi ma gis ni kooku Gavi la bu fekkente ne juum naa ngeen jéggal ma ko ndax xam naa ne catalan yi ñoo ma gën a xam seeni football kat coppat ne la ma Madrid ci suuf it ndax ñoom it taxawaay bi mi ngi commencé am solo bu baax a baax waaye duñu sori yëglikaay boobu dañuy jàll ci li nga xam ne mooy Mundo Deportivo Mondo tamit li mu ñëw ci ba tey nag ci bës bi ba tey gis nga gaynde it ah, li nga xam ne mooy Barcelone ci entraînement bu bi ñu doon def gis nga ca kaw waaye tamit gis nga Hansi Flick mu jël ay loxo ah, tàpp ki nga xam ne mooy Lamine Yamal loolu mooy wane ni wax dëgg yàlla cafeel am na ko ci moom marka yëglekaay bis bi laay jël damaa yàkkamti ndànk ndànk mu wàcce ma buntu ah, Santiago Bernabéu ma dox li ci des dugg nag ci lu koy as yëglekaay ba ma demee ka ma fa fekk nag mooy Kylian Mbappé ak Vinicius Junior marché bi tas commencé nanoo xeppi fi mu toll nii nañ leen nanu moytu ñaar ñii ndax fintoon di bu fekkente ni yaakaar naa ne ñaari métrage yi yeewu nan ba sël mu laal kafe dos bu ndaw wala kafe Touba kenn dootu leen mën a téye ci marka yëglikaay ba di yëglikaay bu ñuy jeexale moom nag daa ñëwul ci daray football wala bari wum ñëw ci football moo tax kon xam naa ni a dañu koy dëxañ may leen image bi noonu rek yaa ngeen jëf